nee na ndigal li nga xam ni joxoon na ko ca jot a ci moom ndax bis bi mu yónnee Serigne Cheikh Serigne Cheikh war faa ñëw ca bis boobee la wàccub liggéey kon loolu Serigne sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda sëñ Basiru nee loolu mooy sa ndigal lu njëkk loolu mooy liggéey yëpp mbale mii ñuy def ci bisu première safar bi nga xam ne naka njëkk yéen ñaar ko daan ànd kon sëriñ baa ngi yeesal ndigal ci yow ak ñi mu ko daan àndal ñëpp nag nee na sëriñ Cheikh Mbacke mi dina fi dellu si waat ndax lépp yàgg na ko dox moo ko daan dox nee na mu ko daan doxee it noonu lay wéyee rek da ko dox kon sëriñ Cheikh dina fi dellu si waat waaye na nga xam ni sëñ bi mi ngi lay gërëm nungul na la itam diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall ndaw yam fa yónni woon it ci kanamu Serigne Cheikh Mbacke yeesal li xam ni neer mi koy nungul fas ko yéene ànd ak de ba liggéey bi dina yàgg lool ci barkeb Serigne Touba ak barkeb Cheikh. la ilaha illallah